asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek di mottali suñu ñaareelu xaaju waxtaan wi nga xam ni moo jokk ci tomb bu njëkk bi ñu waxanteeg yéen léegi waxoon nañ leen ne dañ ciy faram mën na am bii moom na bële guddee sax du ko ni guddee euh, di ci leeral rek euh, daraja yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ni yaakaar naa ne soxlawul kenn di ko yokk ndax nag yow yaay xayrul anbiya wal mursalin te loolu waxuma ko sama moroom waxu ko moom moo ko waxal boppam maay ki gën ci njabootu maanaam ñi génne ci aadama te nag laa faxar loolu tiitaroowuma ko moom day sallallahu alayhi wa nit ku humble la woon humilité mooy wàccee sa bopp wàccee sa daraja ñoddi woo dara ku dégg kàddu ya nga xam ni moom la wax ba ko waaj a laajee nettali nañ ko ñu ne qaala rajulun lin nabi sallallahu alayhi wa sallam yaa xayral bariyati qaala zaaka abi ibrahima alayhi salaam mu ne déet waa ji dafa ñëw ne ko yow yow mi gën ci mbindeef yi mu ne ko déet kooku kat du man Ibrahima alayhi salaam hadis boobu nag ka ko solo mooy Anas ibn Malik ibn Asakir ma nga ca biir wax ja yaakaar naa ne loolu ku ko bëgg a xam xam nga fa ngay dem pour fekk ko fa hadis la bu ñëpp saxal te wéral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ko ñu ko fasala ñu leeral wax ja ne mu ne waqat qaala zalika alayhi salaatu wasalaam tawaaduan li rabbihi wa adaban maa ibrahima alayhi salaam mu ne loolu ba mu ko waxee nee na toroxlu ci kanamu boroomam ak wormaal ak teggin yu mu am ci ibrahima alayhi salaatu wasalaam wa illaa fa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam afdalu loolu nag moom teewul moom mu nekk kama qaala sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu wala waladi aadama man maay sangu doomi aadama yi walam yaqsid bihi l iftixaar wala tadaawul ala man taqaddamahu nee na jublu ci nag tiitaru wala di jéem a tiim di gën a gudd gudd lu ñooña nga xam ne ñoo ko jiitu bal qaala qaalahu bayaanan lima umira bi bayaanihi wa tabliixihi nee na da koo wax rek di leeral li nga xam ne nii moom lañ ko sant mu leeral ko jotal ko wa li haza qaala sallallahu alayhi wa wala faxr nee na looloo tax mu wax tak ñeg teg ca ne waaye nag tiitaroowuma ko loolu nag ba mu koy wax dafa xam ni am na borom kàddu yu ñaaw ak yu ñaaw yoo xam ni bu waxuloon wala faxr dañ naan day tiitaru rek day yokk bu ko defee nag jëmm jooju nga xam ne alquran waxloo na ko ne ko qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahidun moom moomu day nee na man nit rek laa comme yéen loolu nag mooy jëmmi doomu aadama la yor ak la mu lépp nag kon di ko jéem a génne ci darajey doomu aadama wala nga koy jéem a yokk ay daraja yoo xam ne yii bokkul ci li nga xam ni moom la borom bi def ci moom loolu jàpp naa ne ñàkk xam ki ñu yónni ci yow la ñàkk xam ki ñu fonk ki nga ki war a fonk la ñàkk xam ni nga ko war a fonkee am na benn xadis boo xam ni bii imaam Ahmad solo na ko Ibn Abi Dunya ma nga ca biir Abu Daawud ma nga ca biir Tirmisa nga ca biir Ibn Xibbaan nga ca biir Alxaakim ñoom ñëpp wéral nañu xadis ba te ñeneen ñu dul ñoom itam solo nañ ko te solo ga ko solo nag an ibn malik awf ibn malik ak muawiya ak abi darda ak ibn abbas ak ibn omar wa saad ibn abi waqas ak abdullahi ibn amr ibn al baat yooyu laa leen bëgg a indil mu ne ñi maa nekkoon soonu ci wetu Aïcha radiyallahu taala anha mu ma ñett yii képp ku ci wax nee na sosal nga yàlla sos wu rëy mu ne ko la ñett ban la mu ne képp koo xam ni kii man zaama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam raa rabbahu faqad azama ala allahi mu ne képp ku jàpp ni muhammad sallallahu alayhi wa na boroomam nee na sosal nga yàlla sos wu rëy nee ma nekk fi wetam mu ne ko tey lu ma defal ndànk bul ma gaawtu xanaa suñu borom ndax waxul ne wala qad raahu fi bi lufuxil mubiin mu ne ko man maay ki jëkk ana awalu haadihi l umma saala an zalika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ci umma bi maa fi jëkka laaj loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama huwa jibril kooku jibril la wa laqad raahu nazlatan uxra boobu muy wax ak bi lufiqil mubiin nee na mu ne ko innama huwa jibril kooku jibril la lam arahu ala suratihi allati xuliqa alayha gayra haatayni almarratayni raaytuhu munhabitan min alsamaai saddan izamu xalqihi mi ma bayna alsamaai ila al ardi mu ne ma mu ne gis naa ko ci bind ba nga xam ni moom lañ ko bindee réyaay boo xam ne nee na diggante daanaka asamaan ak suuf mu ne xanaa waxuloo dégguloo ne suñu boroom nee na laa tudrikuhul absaar yonent bi wax ko wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabir mu ne awalam tasma an allah yaqulu wa maa kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw mi aw min waraai xijaabin aw yursila rasulan fa yuxii bi iznihi maa yashaau innahu ali aliyun xakim xanaa dégguloo yàlla loolu mu wax ni yàlla nee na du ma nekk di wax ak jenn benn jëmm lu dul nee na dama koy wax yu wala mu am boog lu dox suñu diggante maag moom wala ma yónni ab yonent mu ñëw ci moom ànd ak xibaar yi nga xam ne moom la ko war a xibaar mu ne ko xaalat mu ne moom Aïcha wa man zaama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an min kitaabillahi faqad azama ala allahi filiyam mu ne képp koo xam ne ki jàpp nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nëbb na lenn loo xam ne lii dafa jóge ci suñu boroom muy alqur ci biir alquran nee na sosalit nga yàlla tamit foofu ndax man ko naan ci alquran yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa fama balaxta risalaati risalaatihi yow Muhammad jottali li nga xam ne lii yàlla wàccee na ko ci yow soo ko deful day na la leer ne jotalewoo ko mu ne qaalat wa man zaama annahu yuxbiru bi ma yakunu fi xadin faqad azama allahi firiyam mu ne képp koo xam ne yaakaar nga ne dañ koy xamal lu war a xew ëllëg nee na sosal nga yàlla mu daal di cay teg wallahi wallahu wallahu yaqulu yàlla wax na ne kul laa yaalamu man fi samawati al wal ardi al xayba yonent bi nag suñu boroom daan na ko yenkeewal moom ci baaxam ak njëri yërmandeem lu mu koy xamal nag lu keneen dul xam loola ci coobareem waaye nag liy xew ëllëg xamu ca lu dul lu ko su suñu boroom soo mu wax ko ko su dul loolu am na yu xew yoo xam ne yi xam ngeen ko siira nettali na ko yoo xam ne yii su ko xamee woon noonu ca guddi ga bu ñu xëyee suba du demee noonu bu ko defee nag mbokk yi jëmm a ngi noonu joo xam ne soxlawul ku ko ñambaasal soxlawul ku ko yokkal soxlawul ku ko koy xëccal li mu soxla mooy ku koy waxal li nga xam ni moom moo nekk fi moom dégg naa yenn waxkat yoo xam ni mooy <laughs> diiwaan ak eh, eh, eh, xumbalak toog ci mbooloo di xaabar xaabar yi bi sallallahu alayhi wa moo ñu gën boobu wax benn gënu koo jubadi benn gënu koo dëng benn gënu ko ñàkk sens ñun ay doomu aadama lañu comme moom innama ana basharum mislukum mislukum kon ñoon ak moom ay doomu aadama lañu yàlla nag dafa teral doomu aadama wala xadd karram naa bani aadama teraanga jooju nag moo tax suñu borom génnee yi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëmmam ji ci aadama moomu kon moom mën nañoo gën nag gëm gu gën goo xam ne gii kenn mënu ko natt ci xel waaye nag du ñu toll na dàll ci moom déedéet dàll bi amul benn valeur di mujj ci sën ba déedéet du ñu du ñu yem ak moom du ñu yem darajey rabu àll ci yonent bi sallallahu alayhi nit rek la ñuy mën a yem ci moom mu gën ñu nag gëneel goo xam ne gii du am fu mu yem waaye du ñu doon mukk nag ay objet ay jamaadaat wala ay xayawaanaat ci kanamam déedéet loolu mënta nekk bu ko defee nag yokk gi ngeen koy yokkal jaru ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ni yahud yi dañoo seddalee ko woon juróom ñaar fukki xeet ak benn kenn benn ci àjjana nasaraan seqali xeddali ko ñaar fukki xeet ak ñaar benn ci dugg àjjana nee na sama xeet day danañu teqalikoo juróom-ñaar fukki xeet ak ñett juróom-ñaar fukki mbooloo kon mën nga ko waxee nee na benn moo ciy dugg ajjana ñi ci des yépp safara lañuy dugg mu ne ko ñu dul ku dul dugg àjjana kan la mu ne mooy ña cay topp alquran ak sunna bu ko defee mbokk yi nag ñu yemale fii kàddu yii moom itam am yaakaar ne dana leer ci xelum ñiy dégg